mbokk yi salaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi guute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñu diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na bisimila ci xibaar yi Euh, dinañ ko dooree ak li ñu bëgg rek euh, dugal ci wàllu nag euh, fiscal fukk ñaar yoo jël ci téeméer ñu fas yéene ko nag doxal ci ñiy jëli produit bitim réew di ko dugal ci mim réew loola waral nag boobule dogal ak ak di association bi ëmb commerçant industriel du Sénégal daal di koy lànk jàpp ne méngoowul ak nag accord ya ñu signé woon ca Bali atum 2013 sax ci doll itam ci jamono Covid bi mën na am yeneen i jeexital dinañ leen teewlu ci biir xibaar yi. wàllu jiwu jeeg gu bon ci yenn ci ay barab ci foofe ca diwaanu Kaolack waaye itam engrais bu manqué ci campagne agricole gi nekk na ay mbir yoo xam ne mën na tax wàllu euh, jiw bi daal di nag euh, nasax loolu waral mouvement aar suñu moomeel daal di déposé yu bari ngir daal di manifester wane nag mbir rëq-rëq boobule waaye may ñu leen ko tax ñu daal di nag yiy yàbbi dinañ ci daal di jokkoo ji ca Kaolack ak Adja Awa Thiaw yëngu-yëngu am ci foofu quotidien le témoin euh, jeune reporter yi tàmbale nag seen i grève euh, ñeenti weer a ngi nii ne ñu dañuy sàkku mooy ay conditions yu baax ngir ñu mën cee daal di nag euh, liggéey dinañ leen daal di nag euh, teewlu ak ba ca daal di nag jib dinañu wax ci wàllu local yi bokkoon nag ci ponk wax sa xalaat yeeg investiture yeeg li aju ci wàllu xëccoo gi ci gox goxaat yi foofe sax ci diwaanu Tiwaawoon mairie ba ab soxna daan nañ koy rek samp ngir rek mu daal di nekk ab candidat ci jongante mairie googule Babacar Sow dina ci daal di nag dikk si yeneen i barab yu ci mel ni diwaanu Kaolack diwaanu Sédhiou ak feneen foofu itam yëngu-yëngu ci wàllu politique yi dinañ ci daal di jokkoo jeeg suñu naataango yéen fa daal di toogal dinañ fa toftal yeneen i xibaar fàttali yeneen ponk wax sa xalaat yi bokkoon na ci eh, phénomène yu ñuy publier ay nag vidéo jàmbur bay jur fit nag coow dem ba ci wàllu yoon beneen ponk la ci woon ak li aju ci recrutement juróomi junniy jàngalekat yeeg coow la ci aju ci kanam ñu daal di ci ubbi bi çirkin eskisi Leyla. Adama Ndione. Eh, ci kàddu gi mbokk yi ñu daal di koy nag doore ci li ñu war a nag eh, dindi ci wàllu nag eh, fiscalité ñu daal di koy nag teg xayma ko fukk ak ñaar yoo jël ci téeméer ñu ne dañ koy daal di nag doxal ci lépp luy importation bi nga xam ne nit ki daf koy daal di nag def wala ba muy daal di nag liggéey rawatina bu fekkee ne nag déclaré wuñu ko looloo waral association commerçants industriels yu Sénégal daal di lànk bile nag dogal bàyyi ko ci wàllu nag domaine jàpp boobu boobule nag euh, doxalin dina méngoowul ak accord ba ñu defoon ca Bali juróom-ñaari fen weeru décembre 2013 ñu gis ne mën na am jeexital itam ci woy euh, jëfandiku yi yokk itam njëg yi commerçant ak industriel yooyu tey ji jàkkaarloo nañ ci ak taskatu xibaar yi ngir daal di wax nguur gi mu daal di ciy dertu gannaaw dañ ciy teewlu kii di Omar Cissé nekk directeur exécutif bu association commerçant industriel yu Sénégal ci micro Babacar Samb li wax opinion nationale bi ñu ngi wax Sénégal di wax àddina ne prélèvement bii nga xam ne moom lañ bëgg a def te ñun li ñu ko jàppee mooy ku ñuy laaj impôt wala ku ñuy laaj azaka fekk muy ji ñu jàpp na loolu warta am kon ñu ngi wax askan wi ne loolu su amee ñëpp a koy yëg du commerçant du consommateur ñëpp a koy yëg moo tax nag ñu bëgg ñu ubbi ay waxtaan ci loolu naam dañoo wax ne nañ fay impôt li ñuy bëgg a leeral ci kanam askan wi mooy benn commerçant en tout cas assis waxul nag kenn warta fay imp loolu moom na leer fan yëpp yéen a ngi dégg ñuy wax yokkute ay prix ba sax etaane ne yéey wàññi na 47 milliards ci ay recettes yu amoon waaye ñun loolu naxe mbaay lañ ko tuddee ndax dafa mel ni rek da ngaa joxee ci loxo ndeyjoor jëlee ci loxo càmmoñ te la nga joxee la nga jëlee ko ëpp ndaxam xam ngeen ne 12 pour cent ci conteneur bu nekk loolu ëpp na junni yoon ay 47 milliards donc loolu jàpp nañ ne ay naxe mbaay la gannaaw bi nag am na ay événement yoo xam ne mi ngi suñu kanam di màggal di gàmm moo tax bugguñu def lenn loo xam ne dana xajamal lenn ci euh, événement yooyu waaye dinañ nag wax ne d'accorduñ ci su fekkee yàlla dogal na ñu ubbi ay waxtaan ñu xool nuñ collaborer ñoom ci li ñu bëgg ñu amal ko mooy yokk seen assiette SUTCAT pare nañ ci loolu waaye ci façon bii ñu ko bëgg a defee nag moom jàpp nañ ne du façon bu jaadu bu jaar yoon du façon bu jaadu ba tax na li ñuy wax mooy duñ ko mën a accepter su fekkee nag waxtaan woowu amut ndax dañ ko bëgg wéyal gannaaw événement yi nag danañ dem ci beneen vitesse Euh, bu buñ la tegeeloo attanul ah bu yàggee nag nga nga xoox Euh, nañ ci daal di dellu si kon mu nekkoon Omar Cissé mi directeur exécutif bu ACIS euh, mouvement beneen yëngu-yëngu euh, mooy liggéeykatu le témoin collectif bi ëmb jeune reporter yi ñoo tàmbale grève ñeenti weer a ngi nii ngir daal di sàkku condition liggéey yu jàppandal ñoom reporter yi di ñaawlu itam ñàkkum contrat ci barab ba waa itam yenn ci ay payoor yi nga xam ne lompoñ na lool ñoom nag inspection travail la ñu daal di nag saisir ngir mu daal leen déglu dañ ci naqarlu collectif jeune reporter yu témoin du Ousmane Thior ci jokkoom ak moom Diarra Da Silva. ñuy mën a loo mooy yow nga nekk journaliste. nga nekk ci organe day ay at parce que waxuma la sax euh, stage trois mois mais ay at nga nekk fa amoo contrat liñ la doon fay nga xamante ni mooy soixante mille francs boo xamante ni sax doo ko jot parce que dañuy soixante mille bi dañ koy de soit dañ la koy jox trente mille francs ne la avance avance boo xamante nii après du am complément chaque mois chaque mois pendant des années léegi biñu ba ci biir ci lañ waxee ne ñun kat lii moom foog ñu xoolaat yow ñeneen ñeneen loolu moom dafa métti moo tax ñu ne ah léegi ñu observé benn mouvement d'humeur léegi mouvement d'humeur bu ko defee constaté nañ ni jëm def a ba rencontré directeur bi pour wax ak moom dinañ njëkk a bind benn lettre sax envoyé ko ko waxul dara ñu déplacé pour dem jox ko parce que lettre bali partenaire lañ ko ko envoyé bi ñu déplacé mu bañ ne duñu recevoir léegi nag ñun si lañ demee dem inspection du travail saisir leen expliquer leen cas ñu convoqué woote mercredi bi après ñu ñëw bi ñu ñëwee mu expliqué ñu léegi moom fi nga xamante ne moom ñëwul en personne si mu yabaloon bu ne ko carrément ne ko moom amul lu ñu fayee te ko amoon sax du ñu fay loolu la ñu wax léegi nag ñun fi mu nekk nii dañuy sës parce que tamit li ñuy dund dafa métti trop moo tax ñu ne daal ñun dañu bëggoon mu fay ñu suñu ay arrière rappel prime yi ñu waxoon ak euh, régulation congé pay yooyu yëpp dañ ko doon demandé mu fay ñu suñu xaalis li nga xamante ne moom la ñu yoreel mu fay ñu ñun loolu la ñu bëgg nee na loolu la ñu daal di bëgg eh, yi aju ci wàllu nag mbay mi ñu fàttali ne nag eh, kii di directeur général ba eh, Sud dem na jokkoo jéeg moom moom moom du Omar Ndiaye waaye itam bu ñu sukkandikoo ci kay adjoint am nee na daal dafa nekkul ci miim réew moo tax rek mënatuñ ci mënaguñu ci yey yàbbi wàllu jiwu gi ci mbay mi yu ci bari baaxul ci yenn ci ay barab boog engrais bi itam ci wàllu campagne bi manqué na fu. yu bare bari te yooyee mën na indi ay mbetteel ci yàqu-yàqu yi am rawatina ci dëkku kaw gi mouvement ànd aar suñu moomeel daal di déposé nag ngir daal di sàkk autorisation manifester e, jéebaane li ni mel waaye demande yooyu kenn mayu leen ko ba tax tey ci ci ngoon daal nañ yëkkati kàddu ca kaw Kaolack Adja Awa Thiaw nawetub ren day suñu moytuwul dana indi mbetteel ci gox yu bare li ko waral day moo di jiw wi nga xamee ne si séddaane nañ ko lu ci bari yooyu kàddu ñi ko nungoo ci Bassirou Ba ñu gën ko xam ci turu Tukulëru Baay nekk président bu mouvement aar suñu moomeel li ci gën a doy waar moo di engrais tam amul sac bi nga xamee ne si ñi ngi ko doon jëndee junni ak juróom téeméer jàpp ñaari junni ak ñaar téeméer tey jii day képp ku koy waxaale mi ngi dem ba ñetti junni ak juróomi téeméer di njëg goo xamee ne si nag jàppandewul ci poosu baykat bi moo tax mënuñu ko wutal seen bopp mouvement aar suñu moomeel mbir moomu naqarli ko lool ba mu di ko ŋàññi jafe-jafe bi am ci baykat dafa rawati at yii mu piir ren mooy gis nañu lu ñu mësul gis ci jiwu bon gerte bu baax moom amul ñu ne deetawaay ñu dégg ne engrais amul engrais daan jar ci ñun 9000 ba jàpp 11000 ren ñu koy amee 17500 njëgu saako ceeb ci ñun mu doon nag lu metti te tax gis ko jafe woon loolu warta am ci am réew ak lu mën a xew war nañ indi leeral ci loolu loolu tax na ñoom ci seen bopp kat ñu bëgg a def sax ab doxu ñaxtu ngir yëglu ci autorité étatique yi ndaxte kat bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba nawet bi soo moytuwul dana bon lool mouvement aar suñu moomeel nee na déposé ay demande yu bari kat ngir ñu may leen ñu dox seen doxu ñaxtu boobu ci arrondissement bu Maabu waaye autorité bi day day bañ ba tëdd ñuy laaj loolu lan moo ko waral. ay la yéwén comme gis na jafe-jafe yi bari na. amul benn nit buñ dégg na mu ngi wax ci lu jëm ci mbay mi pour dimbale baykat yi. bind nañu jox kilifa yi façon bu ne def nañu ko ñu ne daal ay la yi marché rek moo des ci la ñu nag ci réewum yoon lañ nekk yoon rek la ñuy def ñu bind méttit bi nag du sax ne dañoo bañal rek marché bi waaye li gën a métti mooy autorité bu nekk ci goox jàppee boppam buur jàppee ñu ñun num ñu wax ay baadoo la kilifa buy jël ay tuuma di ko teg ci ay nit te doo kii di Bassirou Ba daal ni jot na sëkk nag autorité étatique yi yónnee ay mission ci terrain bi. rawatina nag ci kafrin ak li ko wër ngir ñu xam nawet bi naka la tëddee bu dul loolu day mbetteel dana am ci bu ñuy góob loolu nag dana yàq bu baax a baax liggéey bu rëy bi nga xam ne si nguurug Sénégal def na ko ci àll bi ngir ñu egg ci autosuffisance alimentaire Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu saalum pour Sud FM. ci la ñuy wax ci élection locale yi 23 janvier 2022 foofee ca diwaanu Tivaouane kuréel googu di euh, mouvement M2 ñoom nag la ñu bëgg ci coppite boppu mairie bi mooy ñu daal di fay teg ab euh, jigéen mouvement bi nag ci occasion bu muy def euh, lancement am daal dinay rek investir ki nga xam ne mooy coordonnatrice bi di docteur Aïssatou Diong ci leeral Tivaouane Babacar Sow xëccoo jongantey lenge ci bopp dëkk-dëkkaan yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 M2 PAD mouvement bi nga xamee ni day soqali lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jàppale askan wi daal dee tabb madame le professeur Aïssatou Diong M2 PAD ñu ko doon taxawal ci kanamu kilifa yi bëree ñu ko ci maire bi ak ñi nga xamee ni candidat lañu ci élection yooyee loole tax na sax ba candidat bi di Aïssatou Diong ni daal leen taxu koo jóg lu dul gunge ay ndawam waaye itam jàppale askan wi seeni dund dëgg Aïssatou Diong bi mu liggéeyee ba takk li mu yor ñoom won leen projet bi damay laaj ndax yéen adhéré leen ci wala adhéré leen ci dégguma dara de sur ce sur ce je déclare ma candidature officielle à la mairie de Tivaouane pour les élections locale de 2022 je vous ngir coppite am ci bopp Tivaouane suñu demee ko ni 1904 ba léegi ay borom sabadoor ñoo fi ne ay set jong yóbban ay kàddu jigéen ñi ni daal nañu jàppale borom musóor yi ngir ñu toog ci boppu meeri bi. ñun développement moo ñu ñor. Tivaouane moo ñu ñor. Sénégal moo ñu ñor. tàllal loxo ñëpp. honorable député Diop Sy di ko yóbbante délégation Abdoulaye Ndiaye Ngalgou mon frère di ko yóbbante mon cousin. le candidat Pape Momar di ko yóbbante le candidat Cheikh Tidiane Sall di ko yóbbante góor ñëpp yéen borom sabadoor yi ngeen am reconnaissance nag ndax 1904 ba léegi ñun borom musóor yi dañoo gore di leen gunge comme nag yéen il faut savoir rendre l'ascenseur ngeen ñëw rangé ci seen gannaaw jigéen borom musóor gi. Tivaouane Babacar Seye doon cocc ki yéen pour Sud FM. daal di koy nag jaajëfal ñu dem ca commune bu Dia arrondissement Ngocc ca département bu Kaolack mouvement agir pour la commune active et solidaire ñoom nag ñoo bëgg mooy euh, président ba di Ibrahima euh, Diouf nekk candidat ci municipalité yooyu kuréel googu nee ñu daal fexe ba potentiel lu dëkk ba ñu daal di koy suqali fexe itam ba lépp loo xam ne wàllu koom-koom la ñu mën koo rek tàmbale ca boobule dëkk ñu daal di koy itam def fexe itam askan wa daal di moom seen bopp mu nekk ay défis yi nga xam ne président mouvement Agir nee na daal dina ci daal di taxaw moom bi ñu daal di investir bu fekkee nag jot na ci bopp municipalité ba Ibrahima Diouf ñu déglu ko Mamadou Camara. juddoo Ngooj yaroo ma Ngooj màggee Ngooj. li ma motivé ma dugg ci politique wax ñaari njàngat benn njàngat bi tey dama ko jàngat jëmale ko ci man sama bopp beneen bi ma jàngat ko jëmale ci commune bi njàngat bi ma def jëmale ko ci man mooy tey su yàlla defee ma nekk un fonctionnaire des impôts et di liggéey ci wàllu foncier di participer ci élaboration programme de développement de certaines communes nekk impôt domaine bu Fatick tey loolu du sama mérite yàlla mooy doxale noonu donc li moom wën mooy ma jël li ma yàlla sédd ci xam-xam ci alal mu sóob ko dugal ko pour le développement de la commune loolu benn la ñaareel bi tey suñ commune bi bokkuma ci ni naan amuñ dara pour la petite histoire man sama yaay daf ma doon wax ni am na village bu ndaw bu nekk fii dañu doon boote ngooj di ñu yóbbu foofu catholique di ñëw di ñu piqûre di ñu peser di ñu may sungu fu meew dispensaire am na fi am na dëkk yi nga xamante amuñ woon courant am nañ courant maire bi moo ko def defu ko de toute façon ci ayam tey commune bi booy xool lim am am na dara par rapport ak euh, lu weesu mais boo jàngatee bu baax di participer ci développement commune yi xool yenn commune fañ yegg da ngay xam ne commune Dya bi aussi am na lu des suñ commune bi yi nga xamante ne amul lycée suñ commune bi tey bokk na ci commune yi nga xamante luuma sax fu nit ñi di tase di jënd ak njaay amu fi suñ daanaka des na te commune Dieu nag li mu am tey ñëpp loolu la ñu am am nañ suñ suuf am nañ suñ naaj am nañ ndaw yu ko mën a liggéey am nañ ndox am na sax li nga xamante ne yeneen communes yi amuñ ko te commune bi am na mooy suñ géej yi nga xam ne trésor la nekk suñ xamee nañ ko mun a exploiter donc tey commune bi véritablement njàngat boobu ma ko defee daf njàngat jëmale ko si man awma droit croiser les bras damay sóobu ci langue politique bi fas yéene yegg fi nga xamante ne bu ma population mbooloo ku ci nga sa gis sa bopp ca la ñuy daal di nag dem ca Sédhiou foofu coalition Benno Bokk Yaakaar bu mouvement président bi euh, foofu ka ñu jeexañ ne daal mooy nekk candidat mooy kii di maire Abdoulaye Diop ngir mu daal di wuutu euh, boppam ñoom nag xamle nañ ko gannaaw ndaje bi ñuy daal di nag amal euh, ci seen biir Aliou Diallo mooy coordonnateur bu Benno Bokk Yaakaar ca Sédhiou ñu déglu ko ak musa Drabé. coalition Benno Bokk Yaakaar moo woote tey réunion bi fii. parce que ñu ngi jógee ci liggéey. liggéey boobu des listes électorales révision bi mooy lan mooy nouveau primo votants et ensuite ñoo xam ne amuñu woon habitude wootee mais ren dañuy indi seen vote fii te loolu yëpp dañ ko xayma mu nekk mille trois cent dix inscrits donc fichier Sédhiou bi tey tey tey suñu ko seetee onze mille trois cent war nañ ko am comme inscrits ici parce que nu sommes à onze mille deux cent euh, quatre vingt pour ñu seet ban façon lañu organisation la ñu war a def pour ñu organiser suñu quartier ni organiser suñu jeunes yi jigéen ñi ci kanam avec les sages seet ngeen ci salle bi sages yi dañu fees donc ci quartier yi dañu woote mobilisation pour ñëpp pour maanaam ñu dem ci élection yi en tout cas ñun xebuñu kenn ci candidature bi mais Benno Bokk Yaakaar bépp parti bu nekk ci commune Sédhiou tey koo xam ne dafay accompagner le président Macky Sall ñun benn candidat la ñuy am candidat boobu mooy kan mooy monsieur Abdoulaye Diop mooy kandida Benno Bokk Yaakaar pour la commune de Sédhiou lu ñu xam liggéey bi tey lay tàmbali génn nañu suñu kandida ñu ne mairie Sédhiou la ñu bëgg nu ñu koy amee na duñ ko wax fii ci micro bi mais ñun xam nañu ban pexe la ñu war a utiliser pour suñu kandida bi ñu xocc chaise bi ñu ne ko toogal. desandi Sédhiou ndax daal nañu rek interpellé euh, njiit ya ci rek euh, lii di ndaw yi ak nañuy daal di fexe ba jox leen poste responsabilité euh, directeur général bu Grand Théâtre daal na ci indi ay tontu moom nga xam ne mooy ko coordonnateur ndaw yi ci APR bu Sédhiou wax na ne daal ñu ngi jël ay matuwaay te kii di ministre maire bi di ko def bu ko defee ndaw yi ñu daal di leen gën rek puus dañ ciy teewlu kii di kii kii di directeur bu. euh, Grand Théâtre bu Ndakaaru di Ansoumana Sané ci micro ba tey Moussa Dramé

joxe grande orientation à l'unanimité ñun ñu décider que suñu candidat benn candidat la ñu am mooy Abdoulaye Diop dañ koy jiital pour élection yi di ñëw xoolee si biir Sénégal lu nit ñi di wax mooy si biir parti bi di nga gis ay candidature yu dul jeex mais tey soo déggee da nga dañuy nekk di woowante si couloir yi pour ne dañuy trouver consensus nañ bàyyi kii jàll wala nañ bàyyi kële jàll day fekk amul décision unanime décision boobu moo day tax que dañuy dañuy dem suñu avancer day gaaw ministre daf fi waroon teew waaye dafa raté volam au dernier moment moo tax ñëw fi si muy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni gis na taxawaay parti bi ranger siège yu jeunes yi man sama sama cas rek war na mun a firnde war na mun a doy pour wane ni que que jeunesse yi tey dañ leen dugal si këru si si këru gestion wu état man muy wax ak ngeen man maa dirigé COJER bu commune Sédhiou maay dirigé tamit euh, jeune mouvance présidence tey suñu ma jëlee nommé ma directeur général lu société nationale kon loolu rek doy na firnde que ni tey jeunesse yi utiliser lañ rek da leen jël dugal leen si gestion état si gestion ay ay inspecteurs jël ay jeunes nommé leen national jël ay jeunes donc teg leen si ay ay instances yu nga xam ne tey ñoom ñooy ñoom ñooy nas di doxee ay orientation Euh, ñu daal di nag ñëw ci bi ci wàllu nag santé ak lancement tey jii lu aju ci euh, banxaas buy daal di suqaliwaat lu aju ci garab yi ñuy daal di fajoo ci mim réew euh, loole gis nañ ne nag nekk na farata ndax fii ak horizon deux mille trente cinq juróom fukk yoo jël ci téeméer ca garab yi ñuy fajoo ñu daal di koy nag defee ci mim réew acteurs yi nag fas yéene def ay ayu bés ngir daal di nag xalaat yi naka lañ koy rek amalee moom tëralin wi Marie Rosalie Ndiaye. bu ñu sukkandikoo ci mbootaayu xeet yi lu ëpp ñaari milliards ci ay nit ci àdduna si duñu jot ci garab ñu duppee médicament essentiel organisation mondial de la santé nag moom dafa jàpp ne ca ñooña téeméer boo ca jël juróom fukk yi ñu ngi ci Afrique rawatina ci Afrique subsaharienne Sénégal nag ci wàllu politique bi mun na sër ci wàllu wérgu yaram naam fi mu toll nii ci téeméeri garab yi ñuy jëfandikoo juróom-ñeent fukk yi dañu koy jële biti réew daal di ko indi ci biir réew mi taxawal na ay réforme yoo xam ne dafa soxal secteur bu pharmacie ngir yomb yombalal askan wi ñu mën a jot ci garab yi ñuy soxla li mu bëgg a dab ci mbëbët nag mooy fekk atum 2035 fexe ba garab yi ñuy jëfandikoo ci biir réew mi téeméer boo ca jël juróom fukk yi ñu ngi koy defaree fii ci biir réew mi looloo tax nag acteurs yi door ci altine gi ab lël boo xam ne dina wéy ci juróomi ayu bés lañ ciy séentu nag moo di ca jeexantal ga daal di taxawal ab plan d'action boo xam ne dina leen may ñu jëfee réforme yi soxal secteuru pharmacie te bokk na ci lu soxal capital social entreprise pharmaceutique yi nekk ci secteur privé bi yeesal texte maanaam téere yi nga xam ne moom la ñu taxawal ngir saytu lépp lu laale ak wàllu pharmacie yombalal lu ñu duppee procédure d'obtention d'autorisation de mise sur le marché organisation mondiale de la santé mii rafet lu jéego yi nga xam ne Sénégal def na ko ci fànn bu ni mel mu ngi woo kilifa yi ci réew mi ngir ñu taxawal ay politique yoo xam ne dina tax ba investisseur yi nekk fii ci biir réew mi ak biti réew dugal koppar gu bëree bëri ci loo xam ne mën na sukkali industrie pharmaceutique yi fii ci Sénégal renforcer expertise locale bi te bañ a fàtte gën a gëstu ci li nga xam ne moom la ñu duppee pharmacopée paj mi nga xam ne dañu koy def ak suñuy gàncax représentante résidente bu OMS docteur Lucille Imbouwa nag dafa jàpp ne jeexital yi nga xam ne jëlee nañ ko ci mbas mi di Covid 19 nga xam ne bàyyiwul sax secteuru pharmacie dafay laaj ci jamono ji àdduna sépp soppi doxalin ñu mën a defaruwaat su ko defee li nga xam ne moom la réewum Sénégal bëgg a mbëbët maanaam fexe ba Sénégal nekk dëkk bu xarañ ci wàllu defar garab ak séddale boobee mën a antu ci anam yi gën. Euh, mën antu ci anam yi gën looloo waral sax euh, Sénégal euh, def ab xayma ci koppar gi dugg nag ci wàllu garab ndax téeméer ak juróom fukki milliards lañu ko xayma muy quatre vingt pour cent maanaam juróom-ñeent fukk yoo jël ci téeméer ci garab yoo xam ne bitim réew lañ koy daal di nag jéegaane yi tax nag ñu da ñu bëgg ñu daal di koy dabaatal indi itam ay réforme maanaam ay coppite ngir rek Sénégal daal di defaral boppam ay garab bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñuy dénk wàllu PSE di Abdou Karim Fofana ñu déglu ko ak Marie Rosalie Ndiaye. jamono dafa dox Sénégal ci réewu àdduna yi bokk ci réew yi nga xam ne tey euh, mbas mi laal na leen waaye tamit. bokk ci dëkk yi nga xam ne ci wàllu paju lu bëri ci wàllu garab yi ñuy jëfandikoo dañ koy jëlee bitim réew euh, président de la république nag bi muy tëgg li nga xam ne mooy PSE plan Sénégal émergent da ci bàyyi woon xel li nga xam ne mooy wàllu faju mooy secteur santé waaye wàllu defar garab ndaxte ku ne xam na ne Sénégal bëri na ay doomam yu ne bitim réew yoo xam ne ñu ngi liggéey ci këru euh, industrie yi nga xamante ne ñoom ñooy defar wàllu industrie pharmaceutique ci xayma buñ ko xoolee tey Sénégal euh, téeméer ak juróom ay ci ay milliards lay jënd ci ay garab at mu jot ñu ne nag comme am nañ ñu am xam-xam bi am nañ ay investisseurs yoo xamante ne ci wàllu koom-koom bëgg nañ ci dugg ñun ñu xool nu ñuy defaree suñu doxalin organiser ko ba senegal di mën a defar ay garabam ni ñu ko daan defee ci at yu njëkk yi te nga xam ne dañ demoon ba defaratuñ ko mais ñu nga xam ne Sénégal tey dina am ay industrie am di mën a defar ay garabam am ay hôpitalam ba nga xam ne lu bëri ci wàllu wér-gu-yaram duñ ko jéegaani feneen loolu nag bu ñu ko mënee def c' est parce que président dafa am yéene bi am taxawaay bi état bi def li ci war mais ñoo am tamit ay partenaires yoo xamante ne wax dëgg yàlla euh, ñu ngi taxawu Sénégal ci loolu ñu jiital ci royaume de Belgique ànd ceeg PNUD ànd ceeg euh, OMS ànd ceeg BAT ba nga xam ne tey jii ñu ngi am taxawaay bu mat sëkk dajale euh, partenaires yi dajale acteurs yi pharmaciens yi industriels yi bu ko defee ñu mën a waxtaan ba nga xam ne li ñu dal ci mbas mi bañati te dal mbir réew ñu bëri bañatuñu dal ñu fexe ba am suñu industrie pharmaceutique ba nga xam ne garab bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp garab boo xamante ne tamit euh, vaccin bu ñu soxla war nañ ko mën a defal suñu bopp. président nag li bëgg moo ñu jéggi loolu dem fu gën a sori maanaam fii ak 2030 téeméeri garab boo jël fanweer yi ñu koy defaree Sénégal fii ak 2050 ci téeméeri garab boo jël juróom fukki yi ñu koy produire Sénégal senegal doomi Sénégal di ko jëfandikoo ñu koy jaay ci Afrique ci la ñuy daal di nag tàbbi ci ñaar fukkeelu anniversaire conférence mondiale bi xeex wàlli bot di konte ci biir xeex di racisme gis nañ ne nag ña ca loru woon waaye itam seen bakken desu ca ci événement 89 91 di ñaawlu nag benn responsable bi nga xam ne jàpp nañ ne sax événement yu tar yu bokkoon na ci ña ko sooxate ñu fal ko tey jii ca ab kuréel ca ONU muy général Elie Seyd Ould Berek ba tax bind nañu ab leetar daal di koy jébbal kuréelu mbootaayu xeet yi di ONU ngir ñu daal di xoolaat daal boobule xeetu nomination réfugié réew Mauritanie bëgg ñu def commission buy def enquete ci mbir mi tey jii jàkkaarloo nañ xibaar yi Aïssatou Gueye Ba bu metti woon na trop nga nekk ak sa borom kër ñu rey lii nag dafa metti buum nit dafa métti lu mu yàgg yàgg yàgg bés bi bu ñëwee rek da yëg lu bare. mu doon témoignage soxna lieutenant Yaya Sarr bi nga xamante ne nag dañ ko fàtt ci jamonoy événement 89 91 événement yooyu nag ki nga xamante ne moo di général Elie Saïd Ould Barek ñu ak ñeneen la ñu daal di joxoñ baaraamu tuuma ci mbir moomee. général Eli Ould Zahid changé na turam yu bare lu bare muy changé tur pour buggu réer te kooku pendant les années quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze dafa rey suñuy mbokk des officiers et des sous-officiers. daal see xayma nag lu toll ci. juróomi téeméeri nit yu ci daal di faatu ak it lu ëpp téeméeri nit yu ñu daal di teg yoxoo loole bokk ci racisme bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo di rescapé ak tortionnaire tey nag kii di Nations Unies daal di jël dogal may place ki nga xamante ne moo di général Eli Saïd Ould Barek ci biir kuréelam ca noonee nag la ñi daal di tijjeewee ab lettre adresse ko ki nga xamante ne moo di secrétaire général ONU Mamadou Ba rescapé la ci événement 91. dañuy naqarlu organe bu toll na Nations Unies di nommer un général tortionnaire nga xam ne ni loxom setul dara am setul garaat bu toll noonu muy jiite ay ay mbir si jàmm te moom deful jàmm euh, au niveau de Centrafrique. ay tortionnaire yu nga xamante ne nag di laaj ki nga xamante ne moo di ONU mu daal di tijji ab enquête ngir mbir yooyee amoon mën a leer. loxom setul nañ def enquête ñu dindi ko foofu mu nekk warul nekk foofu du palaasam moom palaasam prison la wala ñu Nations Unies nañu def benn commission d' enquête pour ñu enquêter en Mauritanie am nañu foofu siège. ngir bëgg sax ki nga xamante ne moo di Nations Unies daal di respecte ay engagement wam ndekkee tey ci lënd bi ngir daal di màggal vingtième anniversaire conférence mondiale contre le racisme ñoom ñee nag daal neen amal fële ca Paris États-Unis Mauritanie ay manifestation yoo xamante ne ci buntu système des Nations Unies lañ ko daal di amalee. Euh, ñu daal di nag wax benn baat ci wàllu tàggat yaram wàllu afro basket bi ak euh, Yaoundé 2021 [r] Euh, journée bu mujj bi groupe B Nigéria mi nga xam ne mooy tenant du titre bi moo mujjee jël coupe bi euh, dal na ci kaw nag Angola euh, juróom-ñeen juróom-ñetti fukki bal ak juróom ci juróom-benn fukk ak juróom Cameroun kon Mali senegal ba ci Nigéria boobu dal nañ koy qualifié ci waa qualifié ci wàllu quart de final yi mu nekkoon kon match bu mujj ci wàllu jongante yooyu le ñu dal di dikk ci jotaay bu mujj bi ñu ubbi antenne :fra wax sa